my game on my Vladimir Putin. Can do my game on my Vladimir Putin. Can do my game on my Vladimir Putin. alaikum, salaamaaleykum alaikum. c'est Karbala Karbala Jameru. maa leen di woo yéen ñëpp ngeen ñëw Vibe radio. def journée listening mixé bu main levée mixé bu doy waar mixé bu yéeme mixé bu Grand Yoff mixé bu xaar yàlla mixé bu jameru ñëw leen xam nga def ñu def blazing hip hop ñu teewal gars yi ñëw déglu bagage yi mooy loolu noonu quoi invité naa ñëpp bàyyiwuma kenn vibe rajo lay xewee à partir de 19 heures. kon nag tey leen seen couronne men tey leen seen tool bis dina ma an leen ni